gan gi tey ci suba gi euh, mu ngi doon euh, Djibril Gningue bokk ci kuréel gi di GRADEC ñu gën ko xam ci groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance dalal ak jàmm waaw alors opération de candidature yi nga xamante ni moo ñeel élection paluk njiitu réew gënu jëm tàmbale na état bu Sénégal dina leeral candidat yëf yi ñu muy demee ak it euh, montant bi nga xamante ni moo ñeel caution bi tan war koo joxe waaye li gën a am solo te nu jàpp ko ci mbir mi mooy collecte fiche de parrainage est-ce que yow jàpp nga ni euh, ba tey ñu ngi ci délai yi. waaw waaw waaw ba tey euh, ñu ngi ci délai yi par rapport au champ ak coppite bi nga xam ne indi nañ ko ci délai yi parce que délai yi bu njëkkoon euh, téeméeri fan la woon ak euh, juróom-ñett fukk laataa élection yi la ñu waroon a commencé euh, ba parrainage mm-hmm. waaye ci bi ñuy voté waat code bi ci ci mois de juillet fële ci assemblée nationale délai boobu dañ ko indi ci Euh, téeméeri fan ak euh, euh, ak juróom fukk mhm. cent cinquante jours datu élection kon nag bu fekkee ne bi dañuy jàpp délai boobu ñu ngi ci ci temps bi toujours ñu waxtaan sax daanaka tey ji direction des élections convoqué na ko digganteem ak mandataire yi nga xamante ni ñoo bokk ci parti politique yi waaye ñi nga xamante ni ay candidature indépendante lañ bokkuñ fenn ànduñoo kenn naka la yëfi nar a demee tey est-ce que euh, war na mën a donc euh, fluide ak tamit nan lañ mën a def ba yëfi daal mbiccoog mbaaloo du ca am waaw yaakaaruma ne dina am mbiccoog mbaaloo puisque euh, réunion boobu war a am àjjuma comme ni ko communité euh, communiqué ñu ko waxee ci communiqué euh, direction générale des élections mhm. réunion la boo xam ne direction générale des élections dafay euh, jox candidat yi mandataire yi n'est-ce pas mhm. mandataire candidat yi fa ñëw daf leen jox ay information ay leeral n'est-ce pas ci affaire u parrainage bi ci affaire u caution bi Euh, ak euh, ci ci affaire u fiche yi ñu koy remplir ak yooyu incha allah alors euh, bu fekkee ne bi am na nag lu ci leerul ci ñoom lu ci ay lënt lënt mën ñu def ay laaj ñu leeralal leen réunion boobu loolu rek lay jëriñ waaye du réunion wu leneen mhm. donc normalement réunion boobu warul am benn benn jafe-jafe li jëm ci wàllum parrainage bi bëgg nañ ñu nga gën ñu ko expliquer yéen yaa xam ne da ngeen di yëngu ci wàllum élection ay parrainage citoyen ay parrainage élu pour ñu ko comprendre bu baax est-ce que mën nga ci gën a dellusi waaw euh, parrainage euh, dafa nekk euh, aada tradition boo xam ne daanaka pays démocratique yëpp ñu ci bëri am na Euh, parce que bëgguñu ku jóg rek daal di ñëw déposer euh, dossier euh, candidature ne dafay présenté wu surtout ci président élection bu mel élection président de la république donc pour rationaliser affaire candidature n'est-ce pas moo tax ñu indi réew yu bëri ci def donc parrainage normalement ci principe bi euh, kenn waru koo bañ kenn mënu ko bañ waaye nag li nga xam ne moom lañ ci bañ mooy parrainage ba néew nañu koy amalee nañu koy appliquer ci réew ma par exemple Sénégal fii li ñu koy appliquer dafa am ay jafe-jafe ak ay gàllankoor yu bari yu ñu ci dëxañoon alors euh, loolu moo tax parti yu bëri surtout opposition bi contrôle ko ba dem porter plainte ca CEDEAO CEDEAO jox leen dëgg mhm. ne système bu parrainage bii ñuy def ci Sénégal war nañ ci indi ay coppi coppi coppite mhm. ba mu respecter la liberté de candidature le droit de suffrage de population et cetera am na ay euh, ay coppite yoo xam ne indi nañu ko acteurs yi indi nañu ko ci parrainage bi boobaak léegi Hmm? maanaam diggante deux mille dix neuf ak bon par exemple euh, problème mu erreur matérielle yi ah, am na benn méthode bu ñu teg boo xam ne qui permet de régler les erreurs matérielles parce que avant pour les erreurs matériels seulement il y a beaucoup de candidats qui ont été éliminés am na le tirage au sort gis nga buuxante bi daan am n'est-ce pas euh, et de façon injuste ñenn ñi ñitu ñeneen te duñ finalement donc euh, ñu waxtaan ba am tirage au sort bu ñuy def bu ñu waree déposer dossier parrainage am na aussi capitaux yi ñu mujj indi ci dialogue politique bii weesu rek mooy parrainage dugal nañ parrainage par les élus maanaam léegi ku am nangami député maanaam treize députés te parrainage baax na ku mën a am aussi téeméeri euh, chef d'exécutif locaux maanaam ay maire wala ay président de conseil départementaux ci ci téeméer ak ñaar fukk sa parrainage baax na soxlawul ngay dem di def parrainage euh, citoyen ñaar yooyu yëpp boo ko amulee mën nga dem defi parrainage citoyen te foofu aussi wàcce nañu parrainage citoyen bi jëlee ko ci zéro virgule huit pour cent gën gaa néew wàcce ko ba euh, zéro virgule six maanaam fell nañ ci euh, zéro virgule deux pour cent bëriwul gaa mais fell nañ ko ci nañ ko ci mm-hmm. alors Euh, mais ba léegi euh, parrainage bi donc malgré coppite yooyu nga xam ne mën nañu jàpp ne ay progrès la mais progrès yi dafa yéex et ensuite doyul voilà doyul parce que euh, dafa yéex parce que depuis deux mille le cours de justice de la CEDEAO waxoon gouvernement Sénégal na indi ay changement boobaak léegi defe naa war na mat léegi juróomi at Mm-hmm. n'est-ce pas alors doyul aussi changement yi parce que euh, boo jëlee parrainage par les élus yi n'est-ce pas député yi ak euh, chef d'exécutif locaux yi ñeenti parti rek ñoom ñoo ko mën a am PDS APR Taxawu Sénégal euh, Pastef alors bu dee parrainage citoyen bi la boobu itam li ñuy wax doublon externe ba léegi mi ngi fi jógewul maanaam sénégalais bi nga xam ne dafa ñëw pare na kii pare na kaa pare na keneen kooku pare parrainage boobu dañuy wax ne baaxul te dañ koy wàññi boo ñëwee di déposer sa lim lim bi ñu laaj ñooñu ñëpp dañ leen di alors bu fekkee ne loolu dafa bëri nag sa parrainage dañ lay may quarante huit heures ne la demal nga indi ñeneen te bu fekkee ne dafa bëri lool quarante huit heures yooyu ci biir quarante huit yooyu doo loolu moo daloon su ñuy wax Boubacar Camara daloon na candidat yu bëri mais bu euh, Boubacar Camara mooy euh, ci sama xalaat exemple bi gën a fës parce que ci soixante mille ñu doon laaj cinquante neuf mille et quelque presque soixante mille mhm. alors amoon na quarante mille yoo xam ne baaxul woon yoo xam ne dañ ne may ko quarante huit heures na ko na dem indi yeneen quarante mille alors sax xam nga pratiquement moo taxoon ñu éliminé ko donc ñu bëri aussi loolu moo taxoon ñu éliminé ko mhm. voilà ci ci wàllu doxalin gi est-ce que yëf yi narul jur pëccëxoo metti ci sénégalais yi est-ce que yow jàpp nga ni citoyens yi ñoom processus bi expliqué nañ leen ko na mu waree tojal leen yax bi yéen ñi féete waa société civile est-ce que la leen ca war yëpp def ngeen ko ñel wàllum information communication ak gën leen expliquer comment la va se passer. ñi mënuñu wax ne defuñu dara loolu aussi il faut éviter ça. Mhm. ça am na ay coppite mais coppite yi dafa yéex. te dafa ndaw dafa tuuti dafa euh, bëriwul voilà. Mhm. doyul maintenant est-ce que Sénégal yi comprendre ko loolu aussi beneen jafe-jafe la alors foofu aussi ministère yi ngi def ay formation ah, yenn saa yi defe ci élection législative yi defoon na ay formation sous euh, préfet yi ak gouverneur yi pour former leen ci processus électoral sur les opérations électorales n'est-ce pas alors euh, euh, yaakaar naa acteurs politiques yi aussi am na defaloon nañ leen séance de formation ah dañ koy def sax ba bitim réew je crois mais def naa depuis de si euh, législative yi daal gisuma ñu ñu ñu defaat ko mm-hmm. donc formation boobu aussi war nañ koy yaatal ba mu gën a yaatu te yaakaar naa ne waruñu xaar rek élection pour def ko également war nañ ko mën a def euh, yaatal ko wàcce ko aussi ba ci suuf ba ci population yi. Mm-hmm. waaw bañ ko yemale ci acteurs yi rek. Mm-hmm. yóbbu ko ba ci population yi parce que gis nañ ne parti yu bëri amatuñu. école du parti boo xam ne dañ fay convoqué militants yeeg population yi pour expliquer leen. yéen nag est-ce que seen wàll joué ngeen ko ci. alors société civile bi mi ngi joué wàllam ci par exemple médias yi ak euh, presse yi n'est-ce pas chaque fois ngeen invité ñu ñu toj mbir mi expliquer ko wala wolof ci français n'est-ce pas alors dina génne société civile dina aussi ay communiqués ay déclarations souvent pour expliquer waaye loolu aussi xam naa doyul alors li ko waral nag mooy que société civile euh, koppar yi nga xam ne moom moo koy may mu mën a def loolu te mu koy jëlee ci partenaires yi nga xam ne ñoo fi nekk n'est-ce Euh, boobaag léegi euh, dafa jafe. Mm-hmm. partenaires yu bëri euh, joxeetuñu financement ce qui fait que société civile aussi <laughs> finalement du mën a weesu li nga xam ne moom lay def. Mm-hmm. alors tout à mais chaque fois que ñu financement ci partenaire yi société civile non seulement dina def travail de sensibilisation d'explication wàcc ko ba ci suufu suuf ba ci biir population yi mais en plus. dafay euh, taxawal un système de d'observation du processus électoral et de surveillance. Euh, parties prenantes yi maanaam ñi ko sekk ban comportement lañu war a am ngir problème ban caa bëri ak surtout ñu éviter lu jëm ci wàllum doublon. ah lii nga xam ne euh, d'abord réunion vendredi bi mandataires yi nga xam ne dañu fay dem il faut que ñu yóbbaale ay lettres désignation. defe naa loolu mi ngi ci communi communiqué euh, ministère mhm. bi. lettre bu wane ne candidat bi euh, moo leen désigné ñoom ñooy mandataire loolu il faut ñu def ko euh, jox ko mu ñu baale ko d' pour mu bañ a bañ indi coow. Mhm. beneen bi nag mooy que parti yi dañu war a waajal seen bopp ci côté boobu. bu fekkee ne bi mbir mi euh, ñoom xamuñu ko tellement ñu ut ñu am expérience ñu ko xam ñu am expertise xam affaire par parrainage ni muy tëddee ni muy demee ni ñu koy defee bu ko defee danañ mën a éviter jafe yooyu. Mm-hmm. wa illaa bu ñu ko defulee bu ñu demee ba am aussi ñu éliminer leen te euh, sur des bases yoo xam ne jàpp nañu ne jaaduwul. seen parrainage baax na mais dañ leen éliminer parce que dañ leen sëf wala dañ leen def bëgg kile def lu jaaduwul am nañu possibilité recours mm-hmm. ah ñu porter clamer n'est-ce pas mm-hmm. euh, ca conseil constitutionnel bu ko dee daal di wax nag li nga xam ne moo tax ne ñoom ñu jàpp ne élimination bi ñu leen éliminer jaaduwul mais loolu fi ñu koy mën defee mooy bu conseil constitutionnel publier listu candidat yi ba pare mm-hmm. ñoom bu ñu d'accord bu seen tour nekkul foofa ñu d'accord war na ñu am nañu nangami fan pour mën a def recours boobu. lan mooy xalaatu waa GRADEC ci sort bi ñu réservé ex parti Pastef euh, parti ba niñ ko tasee ak seen njiit niñ ko génnee ci liste électorale yi du mën a woote du mën a doon candidat. waaw euh, d'abord li ñu jëlee mesure ne tas nañu ko tas nañu euh, parti boobu ci Pastef loolu gëj na am depuis mille neuf cent euh, soixante quatre ci PAI ak euh, euh, BMS. Mhm. bi nga xam ne moom la professeur Cheikh Anta Diop créé woon alors muy benn ñaareel bi mooy yi nga xam ne wax nañu ci loi nga xam ne moom moo moo moo tënk parti politique yi Sénégal muy loi quatre vingt et un trente bu 1981 euh, li nga xam ne wax nañ ci ne mooy tax ñu tas parti bu fekkoon ne appliqué nañ ko tigi tigi parti yu bëri ñu ngi ci di dox tas nañ leen bu yàgg kon loi boobu aussi war nañ ko xoolaat bu baax ñu mu tëdd mhm. ensuite euh, ñetteel ba mooy que jàpp ma ne administration Euh, moom moo war a tas parti parce que régime parti politique bi fii Sénégal euh, dañu ko constitutionnaliser boo jëlee euh, constitution bu cinquante neuf kenn waxu ci ci affaire u parti politique mais déjà constitution bu soixante commencé nañ ci dougal affaire u parti yi mhm. n'est-ce pas te réforme yi ñuy def ci constitution bi yëpp diggante soixante ba ba deux mille un si si parti politique yi lu ci bëri parti constitutionnalisation dugal mbiru parti politique yi ci constitution bi mhm. pour yokk parti politique yi dëgër laay ah, pour gën a euh, loo xam ne dina gën a mën a sàmm parti yi jox leen doole mhm. loolu nag bi mu amee ah, dañu waroon xoolaat mbir mi nu mu tëddee maanaam administration bi mën na continuer gaa di reconnaître parti yi di leen jox recon euh, reconnaissance bu ñu ku créer sa parti déposé ko. Mm-hmm. n'est-ce pas. Mm-hmm. parce que ci régime déclaratif la ñu nekk au Sénégal. Mm-hmm. mais pour mbiru tas surveiller parti yi ni ñuy doxee pour ku ci jaarul yoon ñu tas la loolu dafa war a nekk ci euh, ressortu justice bi sous la responsabilité de la justice puisque puisque n'est-ce pas mbiru parti yi dañ ko dugal ci biir. constitution bi. Mhm. parti dañu am daanaka surtout ci Sénégal protection. Mhm. voilà. d'accord euh, la constitution. loolu muy benn ci mooy ci affaire tas bi. Uh-huh. maintenant candidature euh, s'il plaît euh, li ñu génnee Ousmane Sonko ci liste électorale yi. ñetti mbir moo tax moo mën a tax ñu génne nit ci liste électorale benn bi mooy. yow mi nga xam ne yow yaa ca nekk. nga demander ñu dindi la. parce que c'est pas obligatoire. l'inscription sur les listes euh, électorales au Sénégal et le vote ne sont pas obligatoires beneen bi mooy nga décédé ah koo xam ne dundatul bu ñu yóbboo certificat de décès bi sur cette base mën nañu ko mais benen bi troisième bi mooy décision de justice maanaam lu mel ne ñu condamné la ba nga perdre ce droit civil et politique alors boo xoolee ñett yooyu ma la wax euh, defe naa benn amagut mhm. yëguma fu Ousmane Sonko ne dañ ko dindi troisièmement amagul décision de justice définitive voilà c'est ça code électoral bi dafa ne il faut mu décision définitive te bu amee décision définitive greffier wu tribunal euh, juridiction ba jël décision bi greffier ba mooy euh, envoyé benn fiche autorité électorale bi mhm. pour wax donc loolu aussi amul c'est pourquoi d'ailleurs man damay wax souvent ne décision boobu c'est une décision euh, extrajudiciaire extrajudiciaire Djibril Gningue ñu ngi lay jaajëfal voilà jërëjëf maa ngi ni Gradec nga bokk ñu yendu ak jàmm.